Euh, mbokk yi jaajëfal leen bu baax ci fasante ko lëre gi kuute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kàddu gi bàyyi ko Sacré Cœur ñu lëkkaloo ci suñuy diwaan juróom-ñeenti waxtu ca Medina Cheikh bisimilah ci xibaar yi. Euh, li ci gën a fës daal na ci rek euh, bokk assemblée nationale ñi nga xam ne nag daanaka euh, jàllale nañu lu aju ci wàllu soppite loi 60 numéro 69 29 bu 29 avril 1969 jëm nag ci wàllu nag état d'urgence beeg état de siège lañ ca daal di nag toftal mooy wàllu catastrophe naturelle yeeg yi aju ci wàllu nag wér-gu-yaram yooyu yëpp nee ñu jox nañu dogal njiit réew mi ngir rek bu ne rek kët rek mu daal di jóg jóg dinañ ci dikk ci ndorteelu xibaar yi lay doon dinañu desandi itam bi jeexital yi nga xam ne couvre fa boobu euh, daal na koy rek daal di am fale ca diwaanu nag Mbuur jaaykat yi jëndkat yi ak ñu yëngu ci wàllu nag euh, quai de pêche ba daanaka nag dafa fees dell ci ak nit ci waxtu yu mujj vingt et une daal di jot ñoom nag jamono ji ñu ngay yëkkati seen i baat di daal di wax ne mbir mi daal euh, la mu leen di nag yàqal ci seen wàllu dund jéggi na dawee dinañ ci daal di jokkoo ci ak Moustapha Sall ci biir xibaar yi lay doon Euh, ba xaas bu ne ak matuwaay cay jël fële ca diwaanu kaw la euh, centre yi nga xam ne nag ñooy dalal ñi nga xam ne ñooy yopp feebaru mbas mi euh, gis nañ ne nag feesagul nag dell waaye nag mu ngi gën di law ba tax nag anam bi yëf yi di wàllante sax daal de nag ëlëm ñàkk sàmmonteeg matuwaay yi bokk na ci la waral Sédhiou itam li ni mel lañ fa daal di nag nemmeeku virus bi ak na muy daal di yokk rawatina nag ci wàllu nag lekkool yi ñu ngi ciy daal nag am xel ñaar wàllu matuwaay masque yi rawatina eh, fii ci diwaan nag cees ndaje am na fa jëme nag ci eh, ñi yëngu ci wàllu njàng mi di SAEMS ñoom nag daan nañuy wane eh, seen i tiitaange daal ci feebar bi daal di alatiku ci l'école yi wax nañ itam jëme ci biirum nag jaari sow dinañ ci daal di dikk ci ndaje bañ ca daal di amal ni ki tey jile juróomeelu plan d'action bu SAEMS ak CUSEMS ñoom itam ñu ngi koy nas ñi nga xam ne ñoo siq académie bu Dakar Pikine Guédiawaye ak Tëngéej ñu daal di xamle seen indemnité BFM bac ba ci examen professionnel yi ñu daal leen koy rek fay daanaka euh, talaata ak àllarba ji ñu jëm sax euh, dinañu sëmb ab euh, débrayage nañ ci daal di nag jukki bokkoon na ci ponk wax sa xalaat yi li ci wàllu nag mbas mi ak lépp lu ko daal di nag wëndu waaye itam mbirum jaari sow ak seet bañ koy seet ñàkk ñaawlu ba ñuy ñaawlu li nga xam ne mooy presse bu France bi ci waxul bokkoon na ci itam ci kanam tuuti dinañ ci daal di ubbiwaat antenne bi sottandikukaay bi faram-fàcce Guinness kiis lay doon. Adama Ndione euh, ci kàddu gi mbokk yi dañ koy daal di nag doore ak euh, assemblée nationale mi daal di nag voté ci altine ji euh, projet de loi numéro 46 2020 bi nga xam ne dafa daal di nag soppi beneen loi mooy bu 69 29 bu 29 avril 1969 nga xam ne nag dafay wax ci wàllu état d'urgence bi ak nañ koy daal di yore ba ci état de siège siège bi nga xam ne njort nañu ko lu jëm nag ci lañ ko daal di yaatal maanaam lañ ca. daal di dolli mooy lépp lu ñuy duppee catastrophe naturelle di musiba moo xam ne dafa daal di rek jéggi rek jékki rek juux euh, yooyu itam jox nañu njiitu réew mi ay matuwaay bu ko defee mu teel koo jël bañ rek jaar assemblée euh, nationale euh, ci loolu nag ministre intérieur na ma ko daal di layale nee na dina mën a tax rek état bi teel a jël ay matuwaayam wala sax teel a aaru ci lépp loo xam ne nag mu ngi xeeñ ci musiba yooyu le loola war a nag ñu daal di nag sàkku ñu daal leen may euh, yooyu nga xam ne nag xeetu nag euh, sañ-sañ la donte ñu ci bari ci député yi rawatina ñu fare ci kujje gi euh, daal di na koy ñaawlu jàpp ne mbir moomu daal lépp luy pouvoir jamono ji mu ngi ci loxoy njiitu réew mi te loolu méngawul ak démocratie ci wàllu wax sa xalaat nañ ci daal di àddu couvre-feu boobu ñu péncoo ca péncum ndaw réew ma fële ca Mbuur am na ci ay jeexital ci jëndkat yeeg jaaykat yi rawatina ña nekk ca quai de pêche Mbuur googu bi ay waxtu simili dese rek euh, ci vingt et une daanaka ñoom ñëpp ku ci neexee di yàkkamti rek jël sa bagage ngir daal di nag ñibbi ndax couvre-feu bi ak nag jeexital ya leen cay daal di nag euh, xaar ñu jàppan nag couvre-feu bi la leen ñàkkaloo ci wàllu koom-koom euh, bari na rax ci dolli itam ñi nga xam ne liggéey guddi la ñuy def jaaykatu cere yeeg yeneen ba ci gargo cere yi ñoom it naqarlu nañu mbir mi ndax gis nañ ne daal ci la ñuy daal di mën rek dund jamono ji couvre-feu bi xañ na leen ko ba ay bataaxal yëkki nañ ko daal di ko yebbee nguur gi Mbour Moustapha Sall. nit ñi bari nañ lool waxaale bi mel ni tulleeg màlle fii ci tefesu Mbour di quai de bi lu jege waxtu des vingt jot jaaykat jëndkat ak ñi ñëwoon dox seen soxla ku ci nekk di yàkkamte ngir dem ndaw si moom jaaxle na lool ab jaaykatu jën la mu mel ni ay jënam tey ji du jeex ndax bi la dañ daan jaay fii ba 9h 10 léegi gis nga client yaa ngi profité bëgg a ñibbi ñoo ngi nii suñuy jot ci suba ba tey jaru ñu doon jaay restaurant kenn jaay boo bëgg a jaay waraañ mu ne ah, toggatuma reer sonn nañ fa sonn yem couvre-feu bi nañ ko bàyyi dimbale ñuy liggéey ñun ay joboot la fii la ñuy faraat boo bëggee ñibbi 20h oto am tataay da ngay njëkkante bay bëgg dee sonn nañ fa sonn yem si la ñuy dund boo xëyee da ngay joxe ndekke boo jaayee ba midi sa doom ñëw nga jox ko nduggal ko mu yóbbu taal soo wàccee gi nga sama ndawal gaa ngi ni ma teg sama wàccee damay togg reer yàggul dara ñu fekk fa góor gi moom mu tiim keesu jënam di xaar kuy jënd mu mel ne mbir mi laal na ko. yow boo jógee jiwaalo ak say jën ñëw fii avant 9h mën jaay ba pare 10 sax day bëgg a paas yow da teeru gaa la xam ban heure lay teer. yaa timis julli ba pare soog a ñëw. ñoom nag ñu yëkkati ay kàddu yu daw yaram di ko jëmale njiitu réew mi. président ñu ngi lay ñaan nga dimbali ñu ba minuit wala une heure baax sonn nañ torop dégg sama baat bi nu mu mel mënumaa wax sax ndax sonn ñoo ay góorgóorlu dong fi ne ay góorgóorlu dong donte ñoom jaaxle nañ am na ñeneen ñu mel ne ñoom ñu nga xamante ne ñii cere lañuy jaay ñii fonde ñi ci def nekk ci ay passion di jaay reer seen loolu day lañu yaakaaroon di ci wut dépense ngir dundal ci seenu njaboot bés bu yàlla sàkk tey ji nag gis nañ mu taxaw ndax couvre-feu bi moo fa jaar Moustapha Sall fii ci Mbour ngir Sud FM waaw <laughs> ñu daal di desandi si ñaareelu vague bi ba tey ak jeexital yi mu daal am yu bëri ci entreprise yi nekk fii ci Ndakaaru daanaka wàññi nañu seen i personnel ñeneen ñi daal di nag bàyyi dispositif mi nga xam ne jëloon nañ ko di matuwaay ci bu njëkk bi ba corona bi amee woon eh, jamono ji nag lenn la ñuy daal di nag eh, mooy seen yitte mooy fexe ba matuwaay yi war ñu daal di koy jël ngir feebar bi bañ wàllante ci entreprise yi Ismaïla Marcel Koli. ngir gën mun a xeex yenn ci ay entreprise wañu nañ bu baax seen liggéeykat yi lu ñu mel la ñu nemmeeku ci compagnie générale des travaux ñu tuddee ko CGX ki ñu xamal lu ñu mel mooy Amadou Diop di directeur administratif bu bile entreprise. ci deuxième vague bi ñun dañu réduir sunu personnel donc euh, on est huit personnes la donc gis nañ ni ñett nit rek ñoo fi nekk donc muy man ak assistante bi. donc le reste ils sont à la maison et on fait le reste du travail en ligne. ci Taïba assurance dispositif sanitaire yu ñu jëloon bi coronavirus tàmbalee moom la ñuy wéyal ba léegi foofu nag lu ñu fa nemmeeku mooy gel hydroalcoolique yi thermoflash yi ak masque yu doy yu ñu jagleel personnel bi fii it ci juróom nit yu fay liggéey ñaar ñi rek ñoo toog seen kër di def. télétravail ki xam la lu ñu mel mooy Cheikh Diaw di administrateur général bu bile société d'assurance. ñun fii ci Taïba assurance mën naa ne lañ tuddee woon première vague mooy kii bu njëkk bi depuis mars 2020 ñun lu ñuy wax wàcceewuñ suñuy loxo la président digle woon ñu nekkoon ci ñun boobu ba léegi ci lay nekk mooy lan mooy ci bureau bi am nañu ay masques yu doy pour personnel bi nga xam ne ñu ngi fiy ñëw am nañu aussi gel hydroalcoolique boo xam ne mu ngi fi képp bépp client boo xam ne mu ngi dugg si fii ñun dinañ fexe boo boo takkul masque ñu téela ci bunt bi ne la takkal sa balaa ngaa dugg si ñu jox la gel nga dugg yow gisal nga ko sa bopp suñu diggante ñun ñi fiy liggéeyee euh, distance li ñuy tuddee distanciation sociale maanaam suriwante bi loolu respecté nañ ko ci personnel bi ñun mën naa ne juróom lañ wala juróom benn euh, ñett ñoo nekk ci bureau bi actuellement ñu ñaar ñi si des ñu ngi toog seen kër yi di liggéey ndax ñoom li nga xam ne mooy seen cër ci bureau bi ñu koy liggéey permettre na la ñu mën na toog seen kër def ko. naam yenn ci entreprise yu nekk ci gox Sacré-Cœur wàññi nañu bu baax seen personnel ñu ci ëpp ñoom dañu maintenir même personnel bi waaye yokk seen dispositif sanitaire pour xeex mbas mi. Eh, Ismaila Marcel ñu dem Kaolack foofu itam feebaru mbas mi la ñuy wax ak centre yi nga xam ne ñoo ñooy daal di dalal eh, ñi amee nag eh, feebar bi gis nañ ne nag feesagul dell capacité ba des na waaye situation bi muy dawee nii ëlëm na leen ndax nag wàllante yu bees yi gis nañ ne na muy yokkoo bari na lool li ci gën nag yéeme mooy askan wa ñu ci bari daal daanaka geste barrière yi wala matuwaay yi moom bàyyi bàyyiwuñu ko xel Kaolack Adja Awa Thiaw national El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack day mën nañ ne feesagul ci jamono ji nga xam ne si ñoo ngi dund mbas mi nekk coronavirus ci altine bi fukk ak benn patient yoo xamee ne si kat forme bu sévère lañ yore ñoom lañ fa teg di leen faj moo ne day lal yi toll nañ ci fukk ak juróom ñeneen ñi nga xamee ni sii nag jàngoro ji laal na leen ñi ngi leen di faj daanaka fi nga xam ne si moom moo nekk biir kër yi waaye nag seenub lim day xëy di yokk bis bu nekk muy situation boo xamee ni sii nag tiital na lool ñi nga xamee ni si ñoom ñoo nekk personnel soignant bi ndaxte kat kaa yooyu mën nañoo dem ba jéggi dayo ajjuma ji ñu weesu diwaan bu Kaolack day mën nañu lu mat juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaari cas confirmé yu covid am na fi ak juróom benni doomu aadama yoo xamee ni si personne contact lañ te autorité médicale yi di leen saytu fanweeri cas yoo xamee ni si dañ leen a ber juróom fukk ak ñaar yu ñàkk seen bakkan ak ñetti téeméer ak fukk yoo xamee ni si wér nañ ci jàngoro ji ci lim boobu ñu yokk ci rek juróom fukk ak juróomi contamination yu bees ci ñetti fan yi nga xamee ni si moom la ñu weesu te ñeen fukk yi ak benn di transmission communautaire maanaam kenn xamul fan lañ leen ko wàlle naam ba tey sàmmoonteeg digle yi nga xamee ni si waa kër docteur joxe nañ ko ci biir marché yi boo duggee ñi nga xamee ni si kat ñoo nekk jaaykat yi ak jëndkat yi dañuy dend di waxtaan ak waxaale te nag duñu takk sax li nga xam ne si moom moo nekk masque sorente moom kenn waxaalewu ko lu mel noonu tam moom la ñu seetlu ci mbedd yi askan wi dañuy toog ci fi nga xam ne si ñoom ñoo nekk buntu kër yi di waxtaan wala ñu toogandoo di naan attaaya li ci gën a nag moo wala bokk bus tata yi ba ci moto jakarta yi te nag takk masque sax duñ ko def bu fekkee ne nag jóguñu ci lu mel ni càggante googu ak ñàkk xam ngi day mën nañoo indi ci situation boo xamee ni si lu ñuy rëccu lay doon awa caw doon jokkoo ak fii ci diwaanu Saloum pour Sud FM. ñu dem Sédhiou foofu itam ba tey ci feebaru mbas mi ak na muy daal di nag lawe ci lekkool yi tax na inspection ba daal di jëli matuwaayam téeméer ak juróom-benn fukk ak euh, juróom-ñeent ci yi ñu am ñaar ci ay masque waaye itam euh, distanciation physique ba daal di sore a nekk euh, kër liggéeykaay bi lay ëmb mboolem daara yi fii ci diwaanu Sédhiou di l'inspection d'académie jëbal nañ ko yi téeméeri junni masque ak juróom-benn ay masque yoo xam ne protection la ci l'école yi ngir mën aar mbas mi di coronavirus boo xam ne taxaw nañ tam mu bañ law ci l'école yi dañ ci teewlu Lamine Sila mi nekk secrétaire général IA bu Sédhiou. waa xam nga école bu ñuy ubbi euh, masques yi doy ñu woon ñu ngi am à peu près ay soixante tey am nañu yónnee nañu ay masques d'une valeur de quatre millions. cent deux mille plus euh, ministère enseignement. technique formation professionnelle 7000 ça fait 169000 ndongo bu nekk war na mun am ñaari masque élève bu solul masque warul dugg ci école léegi fekkee ne xale bi réelal na masque am yi ñoo war a góorgóorlu utal masque su fekkente ne it ñëpp war a sol ay masque waaye sorante bi it dafay jafe lool ci l'école yi ndax it kenn umpalul ne ci classe yi dafa am mu bëri boo xam ne sorante boobu la it mën nañ ci bàyyi xel dañ ci déglu ba tey Lamine Silla di secrétaire général IA bu Sédhiou école yi distanciation physique maanaam mënul am na école yoo xam ne def naa ay tour ay ñetti élèves par table bu nekk war na mun sol masque. ci beneen fan yi it ñeel wàllu njàng meeg njàngale mi ba tey toll na ci juróom fukk professeur ak juróom-ñett ñoo xam ne ñu leen di affecté fii ci diwaanu Sédhiou mu di rek loo xam ne si ñu ngi koy amal ci yenn daara yi ma mën a jeex. waaw professeur da ñëw nañu am nañu juróom fukk ak juróom-ñett yoo xam ne ñëw nañu quinze le CAES bac plus six dix-neuf woon ñu jógee IA Sédhiou dem yeneen IA yi. ci l' inspection d' académie bu Sédhiou ngi dalal xel na it lépp loo xam ne si dafa ñeel njàng mekk njàngale mi ñu farlu ci lépp loo xam ne si moo di waxtu yu ñu ci jagleel ndax it ñu it danañ ko wéyal ba ci digg mois de août waaye tamit lépp loo xam ne si dafa jëmee ci wàllu programme bi it ñu jàppandal ko it ba mën a oyof ki si doon jokkoo ak yéen Sédhiou Moussa Dramé Sud tey njàng njàngale mi ak waa SAEMS si ñi daal di nag wane seeni i nag tiitaange ci feebar bi daal di dugg ci euh, lekkool yi ndax kaaraange gi war daanaka bari na ay rëq-rëq euh, wax nañu itam wàllu flaska yi ñu jàpp ne nag euh, mucc ayib ga des na mbirum jaari sow nekk élève itam te daal di ree jamono ji ñu koy seet ñoom yey nañ ci yaay bi ñeñ ñi nga xam ne ñoo ànd ak kii di Saourou Sène tey ji ñu jàkkarloo ci ak taskatu xibaar yi foofa ca diwaanu Thiès Babacar Ndaw Euh, juróom benn fan ginnaaw bi ñu tàmbalee lii di couvre-feu ak état d'urgence ci Sénégal SAEMS di njaqareem si li nga xamante ne moom mooy tolluwaay mbas bi rawatina fan yi ni mu yokkoo Siré xatu Gueye moom moo jiite euh, SAEMS bu Thiès xoolee tey boo fa duggee li nga njëkk a constaté mooy li ñu wax protocole sanitaire gis nañ boo duggee ci yi port masque boobu daanaka existé tul ñoom yemuñu si sax Sénégal na xool nan lay xoolaatee horaire liggéey yi. mooy ñu fexe ba jaabante bi bañ a bëri ci yi loolu ma koy permettre mooy ñu def ay journée continue yoo xam ne day permettre élèves bu ñu xasee ba jógee kër ga ba ñëw bu ñu wàccee rek ñibbi seen kër dem noppalu ko bu ko defee oto yi ak bus jur jàngoro ci élèves yi seen jàkkaarloog taskatu xibaar boo xam ne si teewaayu ki nga xamante ne moom mooy seen euh, secrétaire général national Saourou Sène waa SAEMS jàpp nag ne tey jii li ay di njàmbat du covid bi rek muy jaari sow suñu syndicat ak jàngalekat yi dañ ne état na ci def plus de farlu mu gën ci jóg pour que xale boobu ñu mën ko retrouver sain et sauf parce que nag jaari ab élève rek bu réer kooku héroïne la suñu école bii école Sénégal parce wane ne fulla ak comportement yu rafet bu élève di am ba tey jii ñu koy nawoo foo fekk. beneen coow bu lëmbee fii si Thiès si benn lycée ñu tuddee ko flaska ba tax na am na ay élèves yoo xam ne seen benn professeur bu jigéen lañ ko def ne ko si biir internet bi tax na nag tey jii sawdu seen ak ñi mu àndal nee na nguurub Sénégal rawatina kilifa yi nga ko mi nañ si gën a jël ay matuwaay. dañoo dal dafa am suñu camarade bu ñu jël defe ko noonu génne ko ci fu nekk ñu partagé ko mu porté woon plainte nag ñun syndicat bi ñu jël xeex bi téye ko mais comme ngeen jàngalekat nu mu jegee élève lu mu yéene élève lenn rek moom jigéen bi lu mu ñu wax man de ba may dugg ci jël OS ne damay jàngale xalaatuma woon ni bés na ñëw may jàkkaarloog sama élève amul fenn fu ma koy yóbbu lu ci yoon lu lan ci ay prison nee na loolu sama xel mooyu ma ko moo tax ñu rocc jël def lettre de désistement le vendredi ba xale yi dellu seen kër li ci nekk mooy tey mënatuñu nangu yooyu muy am fii. Babacar ndaw Thiès Sud FM. Babacar Ndaw ñu daal di nag desandi ak cinquième plan d'action bu SAEMS e ak CUSEMS e section académie yu fare Dakar Pikine Guédiawaye ba Tëngéej ñoom nag ngir daal di sàkk ñu fay leen li nga xam ne mooy seen indemnité yu BFM yu bac ba ci examen professionnel yi syndicat jàngalekat yooyu teg nañu seeni i plan d'action talaata ak àllarba yi ñu jëm euh, nee ñu daal débrayage la ñu daal di amal maanaam fukki waxtu ñu daal di dakkal njàng meek njàngale mi Ahmed Waly Ndiaye mooy secrétaire général bu SAEMS e euh, section Pikine ak Guédiawaye ñu déglu ko. ak El Hadj Moussa Thiam. Euh, ñu ngi demaat euh, grève pour la cinquième fois juróomeelu plan d'action ngir wax ci mbir boo xamante ni waroon na ñàkk muy indemnité yu bac bi loo xam ne depuis septembre la am ba léegi gouvernement bi mel ni faalewul enseignant loolu day wone li syndicaliste yàgg di wax rek gis nga état bii nii njàng ak njàngale bi soxalu leen yomb na nag yow nga nekk ci télé wala nga nekk ci rajo ne def nañ lii ci njàngale mi lii ak lii ak lii la def te yow ñi nga xamante ne ñoo ŋànk njàng mi maanaam jàngalekat yi yow faale woo leen tegoo leen seen i place mënuñu comprendre école di waaj ubbi ñëpp xam ne coronavirus baa ngi fi yow nga am loo xamante ne warloo nga ko ak ñi nga xam ne ñoom ñoo tax tey xale yi am li ñu bëgg yow nga taxaw ne faale wu ma leen tey nga ne leen banques yi ñoo leen war a def lii suba nga ne leen enseignement supérieur te yooyu yëpp état benn maillon la bu ñu ko bëggoon a régler tey tey dinañ ko régler ñun nag ñu ngi jël en témoin toute la population sénégalaise les parents d'élèves les organisations de la société civile la COSYDEP di leen wax ne gis nga ëlëg même bu fekkee ne tëj nañu école yi ndax coronavirus bi aussi bu ñu dellu si waatee dañ ko ci tegaat parce que nag ñun aussi du ñu nangu ñu ñuy manqué de respect tout le temps ñu enseignant ay xaalis enseignant ay xaalis te ñun laajuñu xaalis bu ñu moomul xaalis bu ñu moom moom la ñuy laaj donc mënuñu toog fii tey ñu ne ñu waa barki démb on a rien contre les artistes parce que c'est des gens qu'on respecte beaucoup mais dem nañ président lijjante leen deux milliards nous on ne demande même pas cent millions dañu fay nit ñi seeni xaalis njàng bi démarré kenn laaju fi leneen lu dul li nga xamante ne sa ñaq la donc loolu moo tax ñu ne ñun suba dañu dem débrayage 10 heures mercredi également ñu demaat débrayage 10 heures ni ñaan ku ci mën a wax nga wax ci balaa affaire bi di ëpp loxo Eh, ñeneen ñu mer mooy nag eh, personnel santé ba nekk ca hôpital Dabakh bu Tiwaawoon eh, liggéeykat yi nag daal dina ñuy ñaawlu bu baax a baax yorin bi nga xam ne nag direction bi daal na koy rek yor ñuy sàkku nag xaalis bañ leen war a fay tey jii toogaari ñaxtu lañ fa amal donte direction bi nee na fenn yu yees dina ci fan yi ñu jëm dina ci daal di nag indi ay tontu Tiwaawoon Babacar Sow. liggéeykat yi nekk ci l'hôpital maam Abdoul Aziz Dabakh bu Tiwaawoon dañoo mer ba futt takk ay sekkiti xonq cuy leen warlu ko lu dul taxawaay bi nga xamee ni seeni jëwriñ yor yor nañ ko ci wàllu liggéey bii ndàmpaay yekk xaalis bi nga xamee ni yoral nañ leen ko donte l'hôpital bi mi ngi dox bu baax a baax di direction boo xam ni ni mu yoree bi jégg na dayoo faalewul kenn du leen déglu ba itam loolee tax sax nee nañu daal lu ëpp tuuru ginnaaw ba nga xamee ni noppi nañu toogaanu ñaxtu daal nañu dajeek waaye taskati xibaar yi Sidi Lamine Ndoye secrétaire général intersyndical bi nekk ci biir l'hôpital bi ci SUTSAS waaye itam bi tey ji tax ñu génn hôpital Abdou Aziz Dabakh ginnaaw bi gouvernement bi yokkee subvention nekk 80 millions mu def ko millions gouvernement bi jëndal nañu scanner bu bees muy liggéey ay millions par weer gouvernement bi dugal na 75 millions ñun suñuy recette bu en 2018 léegi nekk na 500 millions en 2020 avantage yooyu yëpp hôpital bi am feeñul tey ci travailleurs yi tey la ñu gën a pauvre depuis bi fi directrice bi ñëwee am ñoo xamante ni dañ fiy liggéey ñu tuddee leen agence santé communautaire ñu def fi hôpital bi ñaar fukki at ñi leen daan fay deux cent leen di fay par weer nan ñu jox suñu xaalis ñu dem régler suñu problème parce que mënuñu leen a bàyyi aussi ñu def lu leen neex parce que la preuve benn dërëm duggul bu ñu croiser les bras liggéeykat yoo xam ne yii ngi ñaan seen jëwriñ mu andi ay leeral ci tableau bi nga xamee ni mu ngi ci kanamu l'hôpital bu nga xamee ni nee intersyndicale bi mooy lee ñu def ci biti kenn xamul lu mu doon ñu ni 9 millions lañ ci dépensé loolu moom mais ñun suñu experts yi ñor ci hôpital bi bu ñu ko xoolee nee nañu grand lii matul sax 300 mille parce que ñun tamit am nañ fi service maintenance kon loolu tamit détournement la léegi nag ñun muñ nañu direction bi duñu wax ñoo ñoom déedéet dañoo waxtaan waxtaan ba xuugee ba sonn mais dara lu ñu wax ak moom dinañ fa toog deux FM. Babacar Sow ci yéen ñi daal di nag uh, wandi wéy ak yéen uh, ca Ndar ak association général bi nga xam ne moo ëmb retraité yu IPRES ñoom ñi daal di nag sàkku ci gouvernement bi ak autorité uh, locale yi ñu gën leen daal di nag jàppale gën leen jox gëdd itam ay membre am tey jii ñoom it yaakaaru lañu ak taskatu xibaar yi ngir daal di wax jafe-jafe yi ñuy daal di dund rawatina ci jamono mbas mi El Hadji Madiop am yore seen kàddu ñu déglu ko kii Yves Tendeng comme ni ma leen ko fukki nit. Ah? yu mel ne Racine Sy. vraiment Macky Sall du ne se plaindra pas de parce que am na yërmande d' abord ci mag ñi te yéene na leen. di ñaan yàlla rek. yàlla dolli xelal Racine et la direction général que mu bàyyi xel ci mag ñi surtout sur le plan médical. assister leen au vrai sens bien que ñu ngi koy def te biñ koy def sax mën naa wax ni ci seen yërmande la. parce que c'était pas compris dans les trucs de l'ivresse mais clause la bu buñ ci dugal quoi pour justement jàppale mag ñi ci seen santé donc loolu daal buñ ko gënoon renforcer ah ça nous ferait vraiment plaisir xam nga nag waxtaan wax dëgg ci la c'est des milliards qu'on paye par mois si ce n'est pas six ou sept milliards par mois alors plus les médicaments là yi ñuy jënd pour agence yi nekk ci Sénégal quatorze régions yi alors ça c'est mais quand il faut tout pour jàppale ñu ci mais mu gën a dooleeku quoi. war nañu gën a jàppale. waaw lan ngeen bëgg a léegi. ñu assisté ci comme comme que nee nañu nañuy masku. bërki démb rek laa ko doon wax Mansour Faye ma ñu ngi def ni ñu mën mais amuñu assistance boo bëggee daal yàlla mosoon na ci mbas mi xale yi nañuy takk masque yi seen waajur yi waxanteeg ñoom ah ci yéen nag. ngeen def leen war leen war moo di ngeen jël vraiment le nécessaire pour jox ko nit ñi ñuy masku ak di ci mais boo leen nee leen te joxuloo leen ñu masku ñoom ñu ngi dar dar yi nga leen bu leen demati amatuñu fu ñu wutee ressource pour lekk ah il faut ñu mag ñi génn pour dëbër dëbëri ah parce que sinon du baax le contradictoire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 Euh, ñu daal di koy door rek suñu invité bu jëkk bi ñaareelu vague Covid 19 bi ba tey ak euh, nag euh, lim biñ ci nemmeeku ñuy faatu bari lool leneen lii mooy wàllante bi gi dayoo lu waral li di mel ndax riposte bi ñuy daal di nag def méngoo na ak dayoo ñaareelu fag bi ndax jumtuwaay itam am na loolu directeur bu si mu ngi ci indi ay leeral docteur Ousmane Guèye ñu déglu waxtaanam ak Adja Issa Diagne. ma ngi leen di fay. yow yaa jiite SNEIPS ñu jàpp ne ñu ngi ci deuxième vague euh, Covid 19 euh, lan moo waral ñu gën a gis li nga xam ne moom mooy cas de contamination ak ñu ciy faatu nu mu bëree nii lan moo koy expliquer. waaw lañ ci mën a wax rek mooy euh, que dañuy jëm a xool nan lañ koy expliquer mais lu ci ëpp science lu mu d'accord moom mooy nga def expérience nga def recherche ba mën a am ay conclusion mais mën nañu xalaat ne tey jii boo gisee ñi am ay cas yu bare. ñi am ay décès c'est parce que quelque part nit ñi dañoo bàyyeeku loolu moom ñëpp yooyu nañ ko Sénégal yëpp xam nañ ko depuis ñi toog ne am nañu ay ñetti cas waxatuñu limatuñu ku euh, ñàkk bakkanam ñëpp bàyyeeku kenn takkatul masque kenn dandantewul kenn raxasuwutul ñu ngi continué waat suñu dañu suñu xeew yooyu loolu mën na expliquer benn côté recrudescence bi ñaareel bi gisoon nañu fi jamono yooyu bi mbir yi wàccee ñi gisoon ay nii ñoo xam ne bi ñu tegee sart ne kenn du dugg ci réew mi te indiloo certificat médical bu wone ni def nga test bi te test bi négatif na gis nañ ñoo xam ni dugg nañ ci réew mi indi ay test yoo xam ne ndeke test yi baaxul te bindal nañ ne nit amuñu doomu jàngoro ñoo ñooñu tam mën nañoo dugg ak doomu jàngoro ci biir communauté bi walla ay nit te doo ko yëg mais aussi ñetteel bi mooy coronavirus day virus yoo xam ne ci famille virus yuy joxe grippe la bokk te gis nañ ni période sedd la virus yooyu di gën a am doole ci ci la ñuy bëri gën a bëri loolu tam mën naa bokk ci liy expliquer loolu mais explication yi mooy explication yoo xam ne dañ koo seetlu rek mais defuñu ci ay gëstu yi mat ba mën a wax ni effectivement loolu la mais xalaat nañ ni ay facteurs lañ li leen mën a jàppale. léegi lu jëm ci ñuy ñàkk bakkan ak yooyu lenn mën nañ ko ci wax am na jamono joo xam ne lu ñuy wax recours tardif aux soins mooy maanaam nit ki feebar toog këram bañ a dem hôpital dem ba mbir ba mu loof ñu soog ko yëkkati yóbbu ko hôpital fekk tardé na loolu bokk na ci li yokk taux de décès yi aussi ak euh, boddi bi ni ñuy xalaat ne dañ leen di boddi bu ñu waxee dañu am coronavirus. mu mel ni ñi mbas bi di daal gën a yokk ñay faatu gën a yokk bés bu jot te terewul matuwaay yi ñu jël dafa mel ni ñoom ñoo gën a suufee que yi ñu gisoon ci ba muy door. bon man ni ma ko xalaatee euh, dama ne. Euh, ci doxalin boo gis rek. ndànk-ndànk la ñuy demee. dañuy commencé tey teg benn jéego. bu ñu xoolee ni jur na ngëneel alhamdulilah bu ñu xoolee ne juróolu ngëneel des na ñu tagaat beneen jéego defe naa loolu la ñuy wax stratégie dynamique moo tax tey jii bi nguur bi jëlee eh, ne tey dañooy def eh, état d'urgence assorti de couvre fa ci région Dakar ak Thiès parce que dëkk yooyu ñaar dëkk yooyu ñoo gën a eh, mbas mi ñooñu la gën a dal boole ci nag Eh, ne léegi forcé ngeen takk masque eh, léegi takk masque bi yematul nag ma nekk sama biir oto wala ma nekk sama entreprise même ci kaw tali bi booy dox war ngaa takk masque loo xam ne jéego bu bees loo xam ne amutoon ñu boole ci ne transport bi léegi dañuy wàññiwaat encore eh, nombre de passagers yi ma ne loolu pour le moment baax na mën nañu dawal nag fi la ñuy wax benn semaine ñaari semaine ñu xool jeexital bi bu fekkee wax dëgg yàlla indi na jàmm ci mbaas mi mbaas mi wàññeeku na baax na bu fekkee nag dañoo gis malgré loolu mu yokku là en ce moment defe naa nguur gi ak euh, ak autorité sanitaire yi denañ jëlaat dogal yokk. mbas bi di gën a law nit yi muy dal gën a bëri ndax yéen a jekku ngeen ci wàllu jumtuwaay ak moyen. waaw lu jëm ci jumtukaay pour aar maladie ak euh, euh, liggéeykat yi defe naa suñu jëwrin Abdoulaye Diouf Sarr ministre Abdoulaye Diouf Sarr fan yi rek waxoon na lu jëm ci garab moom stock bi am nañ ko lu doy wax dëgg yàlla loo xam ne mën nañ ñoo jàppale feeg ay diir pour maladie. lu jëm ci équipement yi aussi pour personnel bi am na ñooñu ñëpp amuñu benn problème léegi la ci am solo rek mooy surveillance yi di xool buñ demee ba naan say alerte jot nañ ko ñi lancer waat benn commande pour am ay bagage te loolu moom defe naa waruñu ci am euh, jàqare parce que par pharmacie nationale d'approvisionnement am na tey ji stock bu doy tey ji docteur Ousmane Gueye bu ñu doon xool gàllankoor bu gën a rëy ci ni ñuy euh, toppatoo wàllu mbas bi lan lay doon. waa gàllankoor bu mag bi daal moom mooy euh, changement de comportement mooy maanaam nit ñi soppi doxalin sénégalais yi soppi euh, doxalin parce que lu jëm ci équipement lu jëm ci médecin lu jëm ci wax ji nit ñaa koy def ñu ngi sensibiliser ñu def lépp li ci des nag mooy sénégalais yi jël ko def ko seen moomeel. waaw loolu lu am solo la il foog ñu jël mbir mi def ko seen moomeel parce que problème fondamental bi foofu la. loo gis lu ne ci changement de comportement la changement comportement ba yombul nag accord nag ni yombul mais góor lu tey jii bu sénégalais yëpp nangoo soppi doxalin rek nga gis mbir mi jeex. docteur Ousmane Gueye ñu ngi lay gërëm di la sant. maa ngi leen di gërëm. waaw ah, kon ñu daal di nag tàbbi ci suñu ñaareelu invité bi beneen docteur Mouhamed Ly xam-xamam ah, màcc ci wàllu santé publique moom itam ñaareelu vague bi mu ngi ciy wax manquement di rëq-rëq yi am ci anam bi ñu euh, gérer crise sanitaire bi waaye itam ñàkk jël masque yi kese taxul leneen lu mu gis mooy wàllu faiblesse bi am ci wàllu test yi nee na mbir moom itam jafe-jafe la ba tey ak Adja Issa docteur Mouhamed lii ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yow spécialiste santé publique nga jamono yi ñu ngi ci deuxième vague mbas mi euh, ñu gis ne nag ña cay faatu ak ñamuy dal dafa gën a bëri lan moo ko waral. dafa mel ni bii yoon la affaire bi gën a tar ndaxte sedd bi def naa daf koy gën a yokk ndax tamit euh, su dee temps tàngaay ñëpp dañu ne si biti donc euh, duñu ñu wàllante lu bëri tandis que dañuy faral di nekk ci ay néeg du ñu aéré bu baax donc cas yi day gën a yokku. tey gis ngeen tamit ne am na dëkk yu bëri ci sous région bi yoo xam ne ñoom tamit seen cas yokku na donc euh, am na daal ay facteurs euh, climatologique ak température bi yuy joué ci ci feebar bi donc su loolu amee nag su dee cas yi dafa yokk maanaam ñi gën a sonn tamit dañuy yokku ak ñi faatu te ci diggante bi tamit ñu motuwaay ndaxte première euh, vague bi newoon nañu def nañu ñu ngi préparé benn plan d'investissement nga xam ne dañuy yokk équipement yi recruter woon fi personnel tamit mais dafa mel ni changement bëriwul ndaxte lii xew léegi daawuñ ko sax dégg ci bu njëkk ba ndaxte da ngay dégg côté maatam am na ñoo xam ne faatu nañ fa ñu waroon leen defal réanimation nuñ ko ak feneen ci ci Sénégal te dama xalaatoon ne si diggante bi suñu jëloon nag équipé structure yi jéem a accélérer formation tamit personnel bi pour fu nekk ci Sénégal nit ñi mun a suñu amee forme garab ñu mun leen jënd kon kon dina tane mais fu mu ne ni dañuy subir pandémie bi rek euh, léegi nag ñoom li ñuy wax rek mooy masque masque masque mais loolu jeexalul wax ji gaa moom war nañu sol masque war nañu raxas suñu loxo war nañu éviter attroupement bon attroupement yi tamit seetlu nañu waxuñu dara ci école yi waxuñu dara ci lieu de culte yi comme ni ñu ko defee woon donc loolu yëpp day mel ni daal affaire bi des na que dañu war a situer responsabilité à tous les niveaux aussi bien ñun population yi que du côté aussi des pouvoirs publics pour mun a def diagnostic bu baax mun a kam jaakaarloog feebar bi. kon yow suñu la déggee première vague bi waroon ñu may ñu gën a mën a préparer wu ngir jàmmaarloog euh, mbas mi euh, jamono yi nga xam ne ñi ngi gis ne sax lii di restriction yu ndaw lañu ñu laal. waaw loolu la donc tamit dafa mel ni ñoom dañu teg bët tamit ci économie bi maanaam. dañu xalaat ne peut-être économie bi mu ngi gën a sooxee rek ndax euh, bëgguñu paralyser économie bi loolu lañ gën a jiital. que wér yaram bi. mais nag loolu yëpp ma ne war na mën a nekk sax waaye dafa dañu war a def ay test parce que li ñu seetlu ci test yi peut-être tane nañu dëkk yu bëri nag quand mais dafa doyul pour ñu mën a ràññee ku am feebar ak ku amul feebar parce que foofu la liggéey bi di gën a yombe su dee xam nañ ku am feebar kooku dañ koy ber comme ça mu bañ a wàll ñeneen ñi mais su dee nag yow xamoo parce que yow dafa gis ne am naa suñu benn xarit bu faatu temps yi ci Covid. mais léegi famille am pour mu def test problème la nee nañu ku amul juróom fukki at wala amoo feebaru jabet wala tension yooyu duñ la testé donc test yooyu nga xam ne dañ koy limité. day tax ba xale bu góor bu am feebar bi peut-être du ko sonal mu nekk asymptomatique mais mun na wàll ñeneen. donc loolu tant que réglé wuñu problème yooyu nag tey am nañu tamit possibilité léegi def yeneen test comme ay TDR wala test antigénique yoo xam ne ñoo gën a gaaw peut-être ñoo gën a yomb tamit que test bi ñu def actuellement daal donc ma xelal leen daal nañu gën a yokkaat test yi Euh, comme ça ñu mën a xàmmee ñen ñoo am feebar bi gën mën a leen a ber comme ça ñu bañ a wàll ñeneen. yow test yi nu mu néewee jàpp nga ne bokk na ci li gàllankoor bu baax euh, li di riposte bi. waaw gàllankoor na ko ndax chiffres yi ñu wax ni toujours day xaw a que maanaam de de l'iceberg benn partie bi rek la ñu gis mais yu ci bëri gisaguñ ko ndaxte testé wuñu ñooñu donc day wane rek une une partie du problème mais du wane euh, l'ampleur du problème dans sa globalité di la sant. ok euh, loolu di jàngatam kon mu nga ko ci nekk rek ak xalaat ba nga ca daal di amee fii lañ koy yemale waxtu wi dab nañu ndax euh, dellu siwaat ci euh, Sud Nutrition laata 22h bi Adja Habsa Elimane waan daal di dikk ci xibaar yi ci yaatal ci kàllaamay tubaab jaajëfal ñu woote jéggaluñ ci ñi desoon ci ligne bi Assane Thioune jaajëfal ko bu baax moo fare woon ci sottandikukaay bi mucc biti ak jaamu biir gudd fan ak wér-wér la am fan ak yàlla nañ ko yàlla defal jërë ngeen jëf.